réseau ñu gis ni tamit eh, récemment gis mhm. nañ eh, sarak mhm. donc bay Alain Ndiaye mhm. mu daal di ñëw daal di dugg fi nga xam te mu naan mooy le cercle des promoteurs waaw daa taxawal combat Boy Niang numéro 2 ak la de Guiers numéro 2 waaw tey yow nan nga gisee tey eh, dugg si boobu nga xam te ne dugg si na ko donc ci géttu produit promoteur yi waaw Baye boo xoolee yàgg na dugg sax ci géttu promoteur yi ndax ku ne Aziz ni Baye te xam nañu Aziz daan na joxe finance financement di dugg ci combat yi mais lu ci bëri bàyyi la woon ndax bàyyi moo daan doxal di dem di lijjanti di dem di ko wax mbër mi ak mbër mi soo boolee dina dina mën a def nii dina jur lu neex ci làmb ji kon nga xam ni kooku affaire bi du gan ci moom daa du du gan ci moom peut-être Aziz dem na ba retiré wu ni moom tëggatul làmb bàyyi na làmb mais boo seetloo newoon na Ah, dina am ay bés yu ñëwee dinañ tëgg ñaar bu benn événement bu mag te boobaa dinaa am ñu ma accompagne ñu tëgg ko muy Baye Ndiaye loolu rek moo waral nit ñi dañ ko ci door par exemple dégg kon promoteur mais Baye yàgg naa nekk promoteur peut-être amul woon licence pour euh, dem tëgg làmb boo xam ci euh, Alburax event la mais Baye ko ko gis xam ni événement as yëpp mi ngi ci woon kon affaire bi du gan ci moom waaw am na ñu naan sax boo xoolee euh, Aziz production. Mhm. ak Alburax Events benn la. Mhm. kon Aziz Ndiaye moo jóge ci bopp bi rek mais même équipe bi la am na ñuy wax loolu. waaw ba tey loolu tamit mën nañ ko wax parce que sot seeg def ci la. ku ne Aziz ni bàyyi mais nit dina am foo xam ne boo fa tolloo da ngay joxe relève may ñoo xam ni say rakk lañu nga yóotu leen ñu leen def leen lii xam nga nga gunge leen. parce que tamit ku ne xam na ne Aziz bàyyi su tëggu su tëggee làmb Aziz tëggu làmb Aziz dina jox conseil dina ko ci jàppale ku jàppale keneen yaakaar naa ne sa waa jarul taxul ñuy wax.